te yaakaar dafa rëy mm. te sëñ Babacar si nag danaan wax ni taalibe dañ koy dimbali ci pas-pasam mm. kii ñu doon denc tey yàlla daf ko daan may ci sëñ Babacar nee na bis dañ ko opeere mu ci guddi gi mu jaaxaloon leen sëñ Babacar feeñu ko ci guddi gi jox ko benn pomaat ni ko jox ko sa papa wala sa yaay mu diwal la ko ndax man duma laal jigéen mu koy nettali di jooy ni xool sañ Babacar di sàmmonteeg charia ba ci gént sax muy sàmmonteeg charia ba génn àdduna di sàmmonteeg charia moo tax sëñ Babacar naayewuñ ko lu dul sell ak ak bëgg charia kalimaatuhu xutawaatuhu lahadaatuhu yi yëpp addaxat muqaddaratun wala tazila nee na luy ñuul ci we fàttali loolu waay